Mm-hmm. def naa euh, deux ans de management à Subdeco après si laa def euh, trois ans à Subimax fa laa amee sama licence en audiovisuel. ok ñu bëri photographie lañ ma xamee. waaw man de xamee voilà si lañ mm-hmm. ma si lañ ma xamee et donc euh, ma dem ba si biir ma commencé nag créer samay affaire mm-hmm. di def ay pédicure manicure soins de visage. waaw maa ngi yëngu si yooyu. Mm-hmm. Euh, maa ngi am sama euh, marque bu tudd Tisania aussi. tisane boo ko boo dégloo bu baax di nga dégg tisane ci biir. tisane voilà may defar ay gingembre citron thé citron ataaya café touba. voilà di def yooyu maa ngi yëngu si euh, affaire mm-hmm. traiteur aussi. <laughs> voilà <laughs> di yëngu si affaire traiteur aussi di yëngu si affaire commerce. Oh. parce que Sénégal am fi benn ah. liggéey moom yaakaar wóorul de ak fi réew mi toll. Mhm. voilà ba nga dajale loolu yëpp mais. nga dajale loolu yëpp aussi dem naa deux fois Maroc. Mhm. tante xool foofu doxul ma ñibbisiwaat parce que man tout le temps damay wax ni nit mun ngaa am fulaay dem mais mun ngaa am jommu dem waaye nga am fulaay ñibbisi. Mhm. parce que nga dem toog foofu doxul nga toog fa di galérer wala ngay dugg si leneen loo xam ne du yow. loolu moo fi bëri. ñaaña yow ñaaña yow gars yi kii nañ la de wër nañ la ba gis la de. <laughs> waaw waaw gars yi wër nañ la ba gis la de génnee nañu say kii daal. effectivement hmm. bi nga demee Maroc. 2017 <laughs> laa njëkk a dem ko euh, mu métti woon torob nag. torop sax métti Maroc. mu métti woon torop parce que Maroc boo fa demee peut-être. amoo ñu la ñu la ñu la ñu la teg si accès amoo ñu la teg si yoon. Hmm. parce que da ngay am ay nit ñu naan la ñëwal fii boo ñëwee ma héberger la. centre d'appel yaa ngi fi boo ñëwee boo demee ba mën a sa bopp nga kii mais da ngay ñëw duñ la sa xool nga nekk fa di galère alors waa alors que ñooñu peut-être séq nga ñoom fii nii teraanga mm. mm-hmm. ñoom ñoo lay wax ñëwal ñoo lay encourager ñëwal boo ñëwee ma héberger la non duñ la sax lijjanti. wala buñ la héberger une semaine deux semaines pare voilà parce que dëkk dafa métti et tout. Ah, dëkk dafa métti ah, effectivement. yow yaa fay nekk di galérer. yow bi nga demee foofu Maroc. waaw dama dem euh, essayé si euh, centre d'appel yi déposé mosuma si liggéey nag mais déposé naa et tout voilà léegi nag après ma dem Marrakech def fa benn un mois bu métti boobu salon benn naa laa doon liggéeyee mhm. def ay létt teg greffage mhm. parce que loolu yëpp peut-être mu ngi ci man am na loo xam ne mu ngi ci yow mais da nga koy yee. da koy yee waaw voilà. Mhm. may liggéey ay te loolu du sama domaine mosuma ko jàng mais dama ko mën rek. ma dem gisuma leneen lu ma liggéey ma dem ñu boole ma ak benn naar ma ne ci salon di liggéey et tout fin mois mu war maa fay mu may chantage ba léegi fayuma waa naar bu góor ah, naar bu góor. Ah voilà ba léegi fayuma ma delluwaat Casa. Mhm. Euh, nekk fa di galère tout ma am si benn ma déposé si benn site en ligne euh, boo xam ne ay sénégalais ñoo ko moom. Soumaré maa ngi koy nuyu de passage parce que mu ngi fa di jàppale sénégalais vraiment di def lu lu am solo ma dem mu euh, ñu ñu xool sama CV defal ma entretien ci jour bi lañ ma jël jour bi ñu ma jëlee ma expliquer leen sama sama sama situation que homme fu ma nekk et tout jour boobu si lañ ma si lañ ma jox benn somme bu tolloo 1000 dirham 1000 dirham mooy 60 000 ma dem ma dem jël ko benn chambre bu nekk Riyad Ulfa mun naa ne si banlieue ba la chambre bi ci jour bi laa ko dem jël ma jël samay bagage dem dara laa doon lal di ci fanaan ci suuf ak karo yi. karo yi boobu mu ngi sedd boobu mu ngi sedd. naka nangoo ma jël beneen dara muur ci fenêtre yi. <laughs> def naa loolu pendant un mois. Mm-hmm. may may nekk si di góorgóorlu di góor góorlu jënd matelas. Mm-hmm. commencé di dem ndànk-ndànk xam nga. des fois affaire yi bu doxee ma dem jënd ay ay bagages jënd ay montre ay parce que ñoom seeni bagage dafa baax plaqué yu baax lañu am. Mm-hmm. di ko yónnee Sénégal di jaay ñu may yónnee waat xaalis bi. Mm-hmm. des fois nit ñi téye sa xaalis lépp la duñ la fay. voilà bi ma nee daal ba gis euh, situation bi doxul. bi ma jógee foofu aussi ma dem ñeneen jël ma beneen sit en ligne ay sénégalais aussi ma def peut-être ak ñoom euh, tour Maroc. ñuy dem ay festival mm-hmm. voilà may def ay ay ay ay ay découverte yu yu am solo di dem si yeneen dëkk yu bëri di rencontrer ay ay artistes yoo xam ni euh, si mm-hmm. yeneen pays lañ dëkk voilà mm-hmm. ba ma demee daal ba gis ni li doxul damaa ñibbisi dellu si waat mooy fu bi ma ñibbisi yoonu suuf laa jël yoonu suuf waaw waaw laa jël oto laa jël parce que om moom lu ma jëndee bi dañu def ay ay fan si yoon bi mu métti nga ñëw sa tànk yi néew et tout fa chaque presque chaque 100 mètres 200 mètres ñu arrêté. effectivement voilà mm-hmm. ma ñibbisi. donc lu tuuti si laa commencé def pédicure manucure yi parce que peut-être mënoon naa ko. Mm-hmm. jàng naa si tuuti tamit Maroc. Mm-hmm. ma commencé di ko def. jënd samay am sama benn somme. peut loolu maa ngi commencé ci ay trente mille cinquante mille ma jël loolu jënd si samay matériel ut sama valise bu ndaw ut sama paan di wër. dem si ñi nga xam ne peut-être xam naa leen ñu ngi nekk si télé yi siiw affaire yooyu noonu ma dem defal leen ñu defal ma pub def ay vidéo affaire yi commencé di dem. Mm-hmm. may def di def ay déplacement di def suñ kër di def daal. Mm-hmm. voilà après si laa dem ma continuer aussi sama at boobu laa 2018 si laa soutenir sama licence. Mm-hmm. ma am sama mention bien. voilà après euh, ma jóge fa ma dem euh, liggéey si beneen. Euh, beneen beneen structure boo xam ni tamit euh, photographe laa fa woon di def vidéo et tout. Mhm. yàgguma fa aussi euh, ma bàyyi loolu. Mhm. après ma créé ma nekk daal nekk ci sama sama sama sama euh, kiiwu bopp. waaw nekk sa yëfu bopp voilà nekk sama mhm. yëfu bopp. di jiw di daana di jiw di daan ba deux mille vingt. ma dajalewaat sama xaalis bu bëri. delluwaat ma ne naa delluwaat Maroc. xooliwaat ba parce que boobu amatuma woon espoir affaire yi métti na. Mhm. ma ne naa delluwaat xoolaat. peut-être mhm. boo demee nga am tuuti tuuti xaalis am tuuti moyen boo demee di nga dina tane quoi. Mhm. mais ma dem euh, même pas un mois corona bi ñëw tëj ma fa nekk naa fa six mois ci diggu corona bi laa ñibbisee affaire yi métti torop day voilà dafa doon métti nga dem jeexal xaalis sama yaay moom mu doon yónnee xaalis. Mhm. xam nga rek maire yi moom ak seen caat yi. ah yaa caat. <laughs> voilà <laughs> léegi. Mhm. ma am ay am mu am ay ay ay vol yoo xam ne ñu ngi doon ñëw. ma inscrit si vol yi jënd billet billet yi cher lool billet retour rek deux cent cinquante mille trois cent mille ma ñibbisi. waaw ñëw toog nekkaat si après si la ah. créé tisania mhm. waaw di def sama ay euh, ay ay tisane yu baax mhm. tisania bi mun naa ne avec trente mille laa ko commencé toujours yow li ngay commencé trente mille waaw parce que man damay damay wax ni il faut commencer avec les moyens du bord mhm. mais munoo ñëw commencé rek ngay da ngay uti financement wala dara te amoo clientèle bu dëgër tout à que voilà nga dem jël xaalisu jàmbur ngay ñëw amoo clientèle yow doo jaay doo am source de revenu doo am dara léegi après problème ngay am ak ñooñu mm-hmm. man mosuma am financement mm-hmm. depuis bu ma commencé di taxale di góor góorgóorlu dem musuma am financement lépp lu may def damay commencer avec les moyens du bord mm-hmm. te lépp lu may def damay def étude du marché ma commencé ak ñi nga xam ne ñoo ma jege. may mm-hmm. defar di leen wan di defar di leen jox. Mm-hmm. def étude daal ku nekk mm-hmm. di ma jox say impression ñuy dolli di doser di defar ba affaire yi normal. ñu commencé commercialiser. sànq foto bi ñu wane bi ma yoree ñaari thermos yi. je pense que semaine boobu laa doon soog a commencé. si nga doon bii nii nga doon doog commencé effectivement si laa doon soog a parce que dama doon def par bouteille et ma toog affaire yi métti. période corona beeg yooyu ma ne pourquoi pas. ma dem biir ville di jaay. Mhm. wàcc sur le terrain ma jënd sama ñaari thermos. dugg biir ville di jaay. sans complexe. non sans complexe. lu ne ma ko si dégg mais man dama gëm sama bopp man. Mhm. loolu la ma ñëpp xamee man dama gëm sama bopp. non parce que li nga fi jotagum wax lii léegi. nii gëm sa bopp la am na ñoom na bu doon ñoom flanché nañ bu yàgg. muy noonu ñaari thermos yi laa commencé bi may commencé ma am sama benn xarit bu tudd Bamba Prod photographe la maa ngi koy nuyu moom moo ma njëkk a may ñaari t-shirt. ne ma defaral mu ne ma yónnee ma sa logo ma yónnee ko sama logo mu defaral ma ñaari t-shirt. ne ma de solo t-shirt yi nga commencé. Mhm. mu jàppale ma si loolu mu commencé di dem di di di mënal sama bopp di dem di commencé di jënd ay termes des fois nga xëy te termes yi toj. Mhm. affaire yi tuuru. <laughs> nga làqatu fenn jooy <laughs> non amul découragé parce que man man man gëmuma gëmuma découragé mhm. parce que sama passion laa topp toujours damay wax ne nit da ngay jël sa passion nga def ko métier diñ ci sawar. voilà mhm. bu ko defee yow lépp luy métti après yow di nga di nga di nga ko surmonter. Mhm. nga jàll si leneen. Mhm. aussi entourage bi daf si am solo. ñoo xam ne chaque jour dañu lay dañ lay motiver dañ lay yokk motivation. chaque jour dañu naan la non dina baax góorgóorlul affaire yu lool rek dafay dafay yokk jom nit. di nga gis aussi ñoo xam ni dañ lay dañ lay dañ lay décourager loo chaque jour. di jéem a damm say tànk di jéem a damm say laal. non no man dama ñëw dama dañ maa yónni yàkkamti ma Saalum laa jóge waaw ma si benn complexe. dama hmm. am mental de fer. su ma amutoon genre mental yooyu noonu kon ba léegi kenn waxatu ko parce que chaque jour nga gis koo xam ne daf lay décourager loo wala chaque jour nga dund ay injustice yoo xam ne mooy loolu. Hmm. donc nañu gëm suñu bopp ñu liggéey bu ñu xeeb dara. Hmm.